mën a xañ ñi nga xam ni ay localités yu dirigé opposition ñoo ko dirigé c'est un problème je crois que loolu aram man dama yaakaar ni c'est un problème souvent day ñëw dans le rapports entre l'État et les collectivités il est temps que ñu régler ko parce que opposition nécessairement dina am dëkk yoo xam ne da koy mais nag bu fekkee daf ko gagner nga xañ ko pour que après nga di defoo fi dara sama nit mooy ñëw beneen bi pour terminer pour terminer xam nga booy la ah? ñu bëri nag ñu ngi jël bilan wu État réalisation état di ko def comme bilan. dëgg dëgg xam nga lan moo tax le débat là est important dama gis avant élection yi ñu bëri daal les collectivités di def ay notes daal ne bàyyi leen président Macky Sall nag ngeen indil ñu lan lan ngeen def. loolu c' est c' est pas qu'à au niveau euh, au niveau national il est temps que nit ñi mën a xool lan la président Macky Sall en tout cas def le PSE dans le cadre national ak li nga xam ni moom la collectivité yi def. Khadija d'abord balaa may ñëwaat si Ibrahima parce que rapport bi euh, Babacar doon wax mu bañ a nekk un rapport conflictuel entre état ak ñi nga xamante ne nii ñooy euh, euh, mairie yi. en fait man loolu gëm-gëm la ci man parce que dama gëm ni une fois que ñu élire la en tant que maire parce que dafa am benn paradoxe bu am nit ñi dañu naan maireu nangam maireu APR wala maireu kii loolu dañ ko war a dindi mm-hmm. d'abord parce que nekkuñu fi pour créer ay élite ay élites euh, dans des partis politiques euh, l'objectif tey dafa dafa doon lu concret maanaam impulser le développement ci zone yi nga xam ne foofu la ñu fal euh, pour en revenir à la commune de Golf Sud bi nga xam ne falaa dëkk mm. gis nga suñu commune ñun on manque de tout commune bi gën a lëndëm ci département de Guédiawaye c'est la commune de Golf Sud commune bi nga xam ne euh, canalisation yi ñu fa def assainissement dafa obsolète parce que population bi dafa explosé ces vingt dernières années si banlieue bi c'est la commune de Golf Sud commune bi nga xam ne violence bu bëri bi ñuy wax nii ci arena beeg yooyu ñun daf ñuy impacte directement. Mm-hmm. c'est la commune de Golf Sud. Mm-hmm. commune bi nga xam ne tey euh, tout est à faire malheureusement l'assainissement comme je l'ai dit tout de suite l'éducation ainsi de suite c'est la commune de Golf Sud maintenant nous en tant que en tant que maire euh, Ndeye Arame da wax lu am solo. ñun on a envie de changer le visage de notre commune parce que tey bu ñu waxee développement territorial bu ñu waxee accompagner les populations dans les services de proximité loolu yëpp dafay rentrer dans le cadre d'une vision boo xam ne un maire qui se présente moom la mën a am yéene ci commune am ñun suñu commune euh, on peut aujourd'hui transformer fondamentalement le visage de la commune de Golf Sud on a on a 4 kilomètres de de c'est man su ma leen su ma leen déggee. ngeen di wax ni yow comme docteur Souleymane Assou. j'ai l'impression que seen mairie fa nekkoon defuñu dara seen maire yi fa nekkoon defuñu dara loolu ngeen bëgg a en tout cas je vais juste donner un exemple concret de la commune de Golf Sud bi nga xam ne fa laa nekk xam nga dafa am un plan de développement communal boo xam ne dañ ko def en 2016 dans la commune de Golf Sud tey boo defee évaluation bi ils sont à moins de 30 pour cent de réalisation de ce plan de développement communal kon loolu dafay wane rek ni vraiment entre li nga xam ne moom la ñu promettroon euh, ñu jox leen un budget alloué à ça ak la nga xam ne moom la ñu réaliser tey y a un monde mais ñun suñu gis-gis ci Golf Sud c'est faire de Golf Sud benn benn euh, commune viable exploiter côte bi nga xam ne dañ ko am aménager ko ba nga xam ne dinañ fa mën a def ay centre de loisir dinañ fa mën a def ay restaurant dinañ fa mën a def euh, par exemple des espaces de sport le beach volley par exemple ñun on a une côte kii bi ma juddoo ba léegi kenn defu fa dara loolu dafa war a jaaxal nit ñi te c'est des choses qui doivent évoluer et changer parce que commune buy màgg dafa soxla certaines infrastructures yoo xam ne ñun on ambitionne aujourd'hui et c'est c'est pas ont de, de, de concession d'aménagement par exemple de de sous-traiter ou de donner en fait d'utiliser les mécanismes yi nga xam ne le le code nous le permet mais pour aménager des espaces yoo xam ne permettre à la mairie mu changer de visage nous on a le technopole de Golfe Sud qui est aussi une zone boo xam ne dañ ko war a mën a utiliser en termes de pisciculture c'est une zone qui est haute par rapport ak technopole bi c'est un ravin qui est très joli on peut utiliser aussi pour offrir des services de loisirs à la commune de Golfe fi may daaneelee mooy ñun suñu rêve pour Golf Sud c'est carrément faire de Golf Sud une commune attrayante ba mën a des investisseurs. Golf Sud et en faire et en faire enfin et ça et ça c'est mon développement nous on veut faire de Golfe Sud le hub du numérique au Sénégal parce que Sénégal yëpp amul benn ville bu nga xam ne dafa jël numérique def ko identité am nous c'est quelque chose qu'on veut faire de Golfe Sud en commençant par l'école primaire en connectant tous les services de santé en faisant de sorte que tey nit su juddoo ci hôpital on n'a pas besoin de te déclarer parce que dans l'hôpital on doit connecter tous les services pour que nit bu juddoo on te déclare et automatiquement tout est interconnecté ça c'est vraiment notre rêve pour Golfe Sud et on sait que bàyyi leen doole état. <laughs> ci gàttal loolu la Babacar doon wax. Ah, je marque un kii rek je marque un je une remarque rek dafa naa ni le le maire Idrissa Diallo feu Idrissa Diallo. il était taxaw Dakar mais demal Dalifort nga xool tout le programme de pavage li mu ànd ak état bi di liggéey tout le programme de pavage qui a Dalifort et euh, un programme de lutte contre les inondations yoo xam ne nii am na fa. ça c'est du concret te pourtant tout le monde savait qu'il était taxaw Dakar. invité nañu ko benn plateau fii il a il avait dit ndeysaan avant muy génn àdduna. que ni l'État avait beaucoup euh, l'aide en tout cas l'avait beaucoup aidé. pour inondation yi mu xeex ko. donc en réalité loolu ça n'existe pas xam nga nit ñi ñoo war a dindi seen bopp une fois que nga nekk maire jëlal sa manteau parti nga teg fële nga ni ñëpp a fal parce que ki la fal xamoo ko sax boo moytuwul sax ñoo xamee ni. bokk noog yow parti sax boo moytu fan la xëy nañu ñu am fi nu meree rek ñu njaw ñëw faral ñëw fal fal la donc laa aussi tu dois que dire tu dois te dire que man démembrement état la naka laa war a liggéey pour que li nga xamee ni mooy samay ressources propres ma yaxanal ko mën ko orienter vers des actions yoo xamee ni ay actions yu jëriñ population bi la ensuite si wàllu coopération décentralisée ak si wàllu sama relation ak état naka laa war a mën a liggéey ak pour que service yi mu fi teg yi fi nekk ma mën si am di si bénéficier wu sama commune parce que aussi état moo fi def maire bi moo fi def yooyu benn la parce que état dafa ni la territorialisation des politiques publiques mu nekk lu am solo cest à li muy liggéey état mënu ko liggéey def ko si kaw asamaan si wala def ko si kaw air bi si dëkk yi rek la koy def te dëkk boo dem rek am na commune wala am na koo xamee ne moo ko jiite te en plus de sax état di lay jàppale si ay budget yoo xamee ni si ak trois bi ay budget yoo xamee ni c'est les ce qu'on appelle les budgets consolidés d'investissement si wàllu BCI boo bëggee tabax benn poste de santé état bi jàppale la boo bëgg tabax école état bi jàppale la yooyu yëpp ñu mën ko dugal boole ko sa budget renforcer ko. à beneen bi mooy bi may bi may terminer mooy bi may terminer si si remarque bi dafa am solo mooy. Euh, acte trois bi daf lay permettre aussi ngay mën a dem sur le marché international di di lever ay fonds du du commune yëpp a koy mën a def di lever ay fonds mos ngeen fi dégg waxu euh, euh, comment euh, comment. mairie Dakar ko waaw mairie Dakar mooy kii ba emprunt obligataire ba. Mm-hmm. donc nga mën a dem def ay emprunt obligataire sur le marché. mais loolu dafay fekk. ils ont bloqué loolu dafay fekk loolu dafay fekk kenn bloqué wu ko loolu dafay fekk parce que booy leb da ngay am garantie kan moo lay garantie état. état bu lay garanti man ville de conseiller ville de Dakar laa nekk état bu lay garanti dafay xool ndax yow tu n'es pas surendetté mais mairie boo xamee sur tu es surendetté mais naka lañ lay mën a garanti si xaalis boo xamee ne xamoo noo koy fayee tamit ni nga wax ni noonu nga ko bëgg a fayee dara leeru si état bi du garanti si loolu donc il faut travailler en parfait intelligence avec l'État xam ni on est dans un cadre on dans une république si fi li terminer mooy ñun au niveau de la ville Abdoulaye Diouf Sarr Dakar bu bees la wax Dakar bu bees bi ma la wax mooy dakaar bi nga xamee ni dinañ si liggéey si wàllu budget bi nga xamee ni mooy budget bi am budget de quarante quarante cinq milliards yi nga xamee ni mooy exister mais aussi dinañu jénn liggéey état mais aussi dem di lever ji ay fonds pour mën a financer ay programmes yi nga ne c'est des programmes yi nga xamee ni moom la am pour askanu Dakar et ça c'est extrêmement important et que ku gis Ablaye Diouf Sarr gis jaar-jaaram gis li nga xamee ni def na ko si réew mi nit ñëpp di ko si gërëm di ko si sant ba àdduna bi yëpp di ko si gërëm di si sant dëgg-dëgg xam ni kooku bu waxee loolu gëm na ko te mën na ko loolu laa am. lu ma Ibrahima tontu sama question. <laughs> dégguma sa question. <laughs> bëgguma la toog foofu dama ne. Eh. nga bàyyi di xeexee doole état. jox mi dama la tontu par l'exemple dama la tontu par l'exemple ay ay programme état ngeen di fësal. te pourtant élection locale la ñu wax. dama la tontu par l' exemple en te donnant l' maire du maire Idrissa sa Idrissa Diallo fa sa Diallo man la Dalifor dama la jox exemple Dalifor rek mën naa la jox yee exemple un un un Hann bel avant l' seen budget dafa naa ni matul woon sax un milliard léegi acte 3 bi dafa naa ni si deux milliards trois milliards yoon toll dafa naa je pense donc loolu amul lenn leen état xeex. parce que le maire a pu saisir des opportunités mais comme ñoom nee nañu maire bi liggéeyu fa dara donc da ngeen di génne maire boobu ñun am nañu benn député bu xarak bu nekk foofu honorable député Fatou Diouf ngeen teg ko foofu <laughs> pour li nga xamee bëgg ngeen ko bëgg ngeen leen non loolu la wax ñoo ni maire ba liggéeyul maire bi sama xarit la mais ñoom ñoo ni maire bi liggéeyul dem ko ba proposé que ni que ñun am na nañu ko xarak koo xamee ni mi ngi foofu l'honorable député Fatou Diouf euh, on en revient au programme on programme tëgg ngeen ko. mais am na lu ma bëgg a terminer déedéet bu ma ko toll sax waaye xam nga sama sama question mu àgg. Euh, tëgg ngeen programme yi. Mhm. moom ngeen fa yéene déroulé ci élection yi ñu jëm. Mhm. programme boobu noonu li ma leer mooy français lañ ko bindee. accessibilité bi pour mu àgg ci population ñu bëri tey ñu ngi ci bokk bokk ci communes yi am seeni soxla am yéene xam li ngeen di doxal lan la te duñu comprendre wala duñu mën a maîtriser li nekk ci seen contenu programme. ñooñu tey naka ngeen ni def bul ma wax nag plateau télé yeeg débat non da nga da nga da nga lu am solo da nga waxoon lu am solo léegi mooy de répondre ma si question da wax am solo est-ce que ñi nga xamee ni ñoo leen euh, ñoo ñoom ngeen waxtaanal ba tënk programme est-ce que dem ngeen si ñoom restituer question boobu nga xam si suba la waaw mais man tënkuloo ma bi <laughs> ngay ñëw si man da nga changé question beneen question nga ñëwee si man donc ma jàppoon ko en ñun boo xoolee léegi rek bi muy jàll 2S son temps <laughs> ko après ñu wàññi ko jox ko ñu donc euh, bi mu tënkee programme am def si vision am waxtaan ak nit ñi gis nga démb dafa am échantillon dakaar boo xamee ni dafa doon échanger ñoom choisir wàllu question stabilité mu nekk loo xamee ni échantillon dañ koy choisir toujours professeur euh, échantillon kenn du koy dañ koy dañ koy choisir toujours donc li nga li nga wax mooy programme boo ko tënkee da nga koy restituer waxtaan ak si nit ñi nit ñi aussi poser la ay question nga gën a stabiliser sa programme programme boobu moom laa la wax ni suñu axe un mooy la gouvernance buñ ko planifier doxal ko buñ ko planifier doxal ko ba jusqu'à un an ñu ma doon wax léegi accessibilité wu. ak euh, yëpp seen programme yi naka ngeen di def pour askan bi euh, jote ci. Ah, waaw en tout cas maa ngi protester parce que sama temps de parole. xaw ma ndax Ibrahima da koo jël tamit non non non yooyu ay yooyu yaay joxe la parole. <laughs> donc da ngay war a yor benn chrono aussi euh, non fii langue langue nationale yaa ngi fii. lépp lu ñu bind ci nasaraan war nañ ko mën a traduire ci wolof euh, su fekkee ni fii Dakar la à Hann bel je pense que ñëpp dégg nañu olof euh, lii xew Fuuta nag man mënuma ci jël benn garantie <laughs> euh, wax ngeen sànq d'ailleurs avant ñuy dem fenn dama yaakaar ne Diouf Sarr waroon na fay ay droits d'auteur sama benn waay yu ñuy ndongo fay bu nekk yaraax parce que depuis ñaari at maa ngi dégg mu naan yaraax bu bees. <laughs> te Diouf Sarr yenn saa yi dafay dugg. loolu moom leer na ma. mu ngi nekk ci panel B de Anne. Mm, maa ngi def kooku ñoom ñëpp jànk fay amul problème. voilà donc euh, <laughs> coopération décentralisée wax nañ ko sànq. Euh, su ñu ne sécurité bokkul ci compétence transférée yi ay nit di doxantu di agresser population maire mënul toog donc je pense que. Euh, pexe yi nga xam ne maire da ko war a def pour résoudre problème yi moo ko xam coopération décentralisée def ci bokk euh, man bokkuma ci ñuy wax maire defu fi dara loolu langage boobu man duma ko tenir mënul nekk sax mënoo nekk ci wéru commune def ay at ñu ne defoo dara loolu mënul nekk par contre mën naa ne su fekkee ne def na mu baax ñun suñ ñëwee dinañu defar ba mu gën a baax man loolu mooy sama discours su fekkee ne baaxul ñu changer donc loolu la mais naan baaxul langage boobu dafa xaw a agressif euh, commune bi ma dëkk le plus gros problème mooy il y a des centaines foofu peut-être am na lu mu ñu indil effectivement ci acte trois bi parce que dañu ne li contribution entreprise yooyu doon euh, produire au lieu ñu ko jox ville mu séddale ko en regardant le nombre d' habitants. Hmm. léegi commune bi lañ koy jox effectivement boobu indil na dara Hann Bel-Air mais contrepartie nag euh, y li ñuy wax les risques industriels. Euh, am na ay at 1992 am na benn camion d'ammoniac bu explosé woon mu kenn ñemul wax ñaata nit dafa wàññeeku. yal leen yàlla xare àjjana mais loolu risque yooyu jeexul euh, bi. pooru Beyrouth explosé li ko explosé lu une semaine après gis nañ lu ko gën a rëy mu ngi woon pooru Dakar. Mm. dañ jékki-jékki rek ñu ne wey wey noo kii matériel bi Mali la jëm nañ ko dem président signé na benn affaire ñu yóbbu ko foofu euh, liggéey ak état mais loolu c'est obligatoire moi je pense que mënoo ñëw ne da nekk. collectivité locale tu es autonome déedéet wax nañu démembrement de l'État mais quand même li mu jox nekk na une démonstration Khalifa liggéey na ak Ablaye Wade tout s'est bien passé Khalifa liggéey na ak Macky Sall rien ne s'est correctement donc kan moo fa bees Macky Sall donc hmm. président donc la ñu war a wax na wàññi dangaram tuuti quoi c'est pas parce que dañ ko gagné Dakar rek dafa war a maire maireu Dakar man ànduma ak ñoom ñaar mais xam naa ne xalifa euh, mën na liggéey président président Wade mënoon na liggéey ak moom mais peut-être problème bi bu mënul leen imposer Diouf Sarr on aime bien Diouf Diouf Sarr xam naa ko bu baax mais na ngeen ñu may ñun itam. ñu joxe suñu xalaat ci élection am. imposé amatul élection dañu dem élection. Euh, waaw mais kenn imposé wul. kenn dañuy dem élection mais wax ji dafa bari quoi. ah la <laughs> wax rek. yéen a xam nga. yéen def ngeen politique ak wax ju bari non def ngeen benn tourne tournée Sandaga partout. de damaguñu Sandaga xaaral ba ñu dem. naa la jox programme Sandaga damaguñu Sandaga. Barthélemy moo dem Sandaga ñun damaguñu Sandaga. non non bu yàq waxtaan bi non non. cinq minutes moo ñu dese ngeen bëgg. non non waaw mais mais non yow da ngay. intervenir su ñuy wax da ngay intervenir da ñuy may ñu terminer. moi je pense que euh, dafa am ay xale yu bari yoo xam ne amuñu liggéey ñu am ay société bu yu bari ay entreprise yoo xam ne ci responsabilité sociale et environnementale mën nañ leen jàppale bu ñu am dara mais. lobbying dafa am euh, plaidoyer dafa am yooyu yëpp ay arme la pour résoudre des problèmes yoo xam ne dañu état bi dafa ne non waroo ko def. d'accord waaw mais sécurité mais munoo xaar ñuy agressé ay nit nga naan non c'est pas une compétence transférée. il y beaucoup d'autres idées yoo xam ne mën nañ ko expliquer exploiter. docteur je parlais de l'accessibilité du contenu des programmes euh, jëmee ci askan waaw man de sama gis-gis ci Bargny vraiment c'est très accessible parce que wax naa la sànq euh, li ma jéem bëgg a def ci wàllu euh, environnement wàllu éducation ak santé ak sport bi également mais des na yeneen secteur tey jii boo xoolee culture amul Bargny te pourtant ñun ay lébu lañu euh, Bargny amul agenda culturel communal annuel amu fa. amul benn activité bu ñu inscrit dans l' de la commune ñu ne lii mooy mandargaal wàllu culture ci biir Bargny amu fa les acteurs culturels dañ leen bàyyi noonu rek à leur désir ku nekk xool noo def mais maire bi du ci accompagner kenn lulul ku bëgg organiser euh, en fonction de la tête du client ñu abal le centre socio-culturel Ndiouga Dieng bi bu ñu bu ñu bu la joxee centre bi ñoom pour ñoom rek la nañ sa problème alors que dëkk dafa war a am agenda culturel annuel ñu xam du 1er janvier au 31 décembre yan activité culturelle moo ci am ñu xool nan lañ koy dérouler en fonction euh, des priorités beneen bi mooy wàllu euh, wàllu wàllu jeunesse mm. jeunesse su Bargny tey jii bokk nañu ci jeunesse yi nga xamante ne lañ leen fàtte ci sept ans yi nga xamante ne mairie bi euh, nekk na fa Bargny actuellement mu ngi abriter le port minéralier et vraquier entre moom ak Sendou ce qui veut dire que port de Dakar dañu koy déplacer sur le plan de l'activité lu bari ñu andi ko Bargny loolu war a gën a changer waat repositionnement wu Bargny par rapport ak jeunes yi nga xamante ne ñoo fa nekk sur le plan de la formation d'accord ñu war leen ñu war leen ñu war leen capacité pour ñu am ay diplômes am ay formations yi nga xamante ne dina leen permettre ñu nekk aux aguets par rapport ak emploi yi nga xamante ne dina fa génn et également par rapport ak opportunité yi fa nekk en terme d'entrepreneuriat te loolu ba léegi nii jeune bari ñi amuñu ci ay ay ay fistulaire loolu mën gëm naa ne que bu fekkee ne ne que élection 23 janvier yi yàlla may na ma ndam ci bari ñi loolu dina nekk priorité ndax opportunité yi port bi di andi dinaa fexe jeune bari ñi yu bari am ci am ci possibilité. et enfin fi may jeexalee mooy wàllu modernisation mairie bi gis nga aram bari ñi boo fa demoon tey mairie ba nga bëgg euh, extrait de naissance. it te faut au moins deux jours pour pour ñu jox la extrait de naissance. Hmm. da ngay ñëw di jaabante ji di jaabante il faut nga xam fa nit nit xam fa nit ñu mettre la en rapport pour nga am extrait de naissance. c'est-à-dire que mairie c'est ça doit être une structure fonctionnelle moderne dafa war a méngoog ñun ni ñu mel d'accord boo ñëwee ñu ne la kii signé suba lay ñëw 11h rek wala il faut nga ñëwaat 16h rek mais on a on a l'impression que nekkatuñ sax. ci région de Dakar. loolu li ma doon wax sànq ngay dëggal finalement seen maire deful dara kon. moom <laughs> du man du mën a deful dara du mën a deful dara. mais vraiment man bu ma bu ma nekkee Bargny ut quand j'écoute les Bargnois je sais que 23 janvier moom xaw ma kan mooy falu mais du nekk moom. Ah, na ngeen di def pour euh, nit yi jotee ci li nga xamante ne moom ngeen di dëxañ seen biir contenu kii nga may ma rek juste euh, une petite parenthèse ma ma ma ma ma ma yokk parenthèse si Ibrahima parce que heure baa Ibrahima ça je te hmm. le je te juste que ñu à Golf Sud dañu doon am un problème très sérieux boo xam ne filao yi ñu dindi Euh, ci su si si côte maritime bi moo ko indi. et que bi ñuy def euh, VDN 2 bi euh, c'était prévu que dañuy replanter waat filao yooyu pour fixer en fait. les dunes parce que avancée de la mer c'est une réalité si commune de Golfe Sud donc ñun dans notre programme on on demande à l'État par rapport ak engagement yi nga xam ne daf ko jëloon pour qu'on puisse replanter la bande verte des filao mu nekk quelque chose boo xam ne réellement dinañ ko def parce que les populations de golfe demandent ça euh, li nga xam ne aussi tey mënuma ko ñàkk wax fii mooy on a un problème criant d'eau gis nga dafa am quartier yoo xam ne biir golfe sud trois heures du matin la ñuy yeewu di root alors que nous nous avons un château d'eau bu nekk à HLM euh, Las Palmas te tey château d'eau boobu ah, ravitaillé wul population de Golfe Sud ñu ngi demander aussi à ce que ñu mettre en place ay infrastructures yoo xam ne danañ mën a ravitailler la population de Golfe Sud en eau parce que ça c'est des besoins vitaux yoo xam ne nit bu ko matalewul mënuñu aspirer à un changement développement bi nga xam ne moom la woote avec leur plan Sénégal émergent euh, fi nga xam ne nag moo am solo mooy nan la ñuy yi li nga xam ne ñun moom ci population yi laaj leen euh, recueillir seen avis donc tey dañuy dellu ci population yi avec des politiques de proximité yoo xam ne dañuy seeti les la société civile dañuy dem seeti les imams dañuy dem seeti les les les jeunes les associations de jeunes les associations de femmes pour waxtaan ak ñoom ci proposition yi nga xam ne euh, aujourd'hui moom la ñu te loolu je pense c'est toujours dans la démarche participative bi nga xam ne ñun moom la ñuy woote et en même temps nous mettons en place euh, des des des mm. def des vidéos thématiques sur les questions yi nga xam ne ñun ñu ngi koy aborder dans wolof surtout voilà parce que c'est vraiment la langue bi nga xam ne moom la ñëpp di wax pour partager ko aussi parce que tey xam nañ ni euh, xarala yu bees yi dafa nekk ay moyens yoo xam ne day permettre euh, à tous ceux qui communiquent ñu mun a wax ak attendre cible bi nga xam ne moom la ñu am donc en somme euh, et ça c'est vraiment quelque chose bi nga xam ne je veux je veux vraiment le dire ñun dañu jël l'humain ñun def ko au cœur de notre notre objectif de développement parce que nit ak lépp li nga xam ne mooy ñoŋal dundam muy éducation muy santé muy cadre de vie muy euh, développement bi nga xam ne moom la laaj loolu mooy suñu cœur de programme. merci on espère que les de golf euh, l'ont entendu et ça c'est la liste c'est liste c'est liste de euh, Yewwi Askan Wi. def loo xamante ne c'est pas normal tête de liste bu coalition euh, Yewwi Askan Wi ca Golf Sud di remercier également docteur Souleymane Astou Diagne euh, di tête de liste euh, ca mairie bu Bargny remercier professor Joseph Sarr tête de liste Anne Belair di représenter coalition Wallu Sénégal et enfin l'adjoint au maire de Yoff di Ibrahima fal bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Babacar ñu joxante waat rendez-vous lundi incha allah. jërë ngeen def yéen à une heure peut-être moyen tardive ah. day na waar tey moom kala <laughs> baax fi jur saa rek <laughs> alors ñu ngi ba waxtu yi ngi remercier également à l'équipe euh, technique je vous retrouve demain pour le vingt h excellente soirée sur la 2